ci xam nga turam dëgg dëgg dëgg. waaw mooy atanoma. atanoma. mooy lii. chef réceptionnel bii. atanoma mooy turam dëgg dëgg. ci uh, uh, turu cosaanam mooy atanoma. lii de am naa xarit bu tudd Xalil Guèye di xam naa ne moom laa koy jox wala wala wala Serigne Guèye ah ñoom dinañ soxla yi wala Mbabacar Ñing waaw atanoma bi moom lañ. atanoma mooy turam cosaan ba ñuy koy bind mu nekk en français lañ ko def faiblesse sexuelle. la ilaha illallah. sëñ bi lan moo andi tey jii nii Sénégal boo xoolee ñëpp moom la ñuy jàmbat faiblesse sexuelle. waaw parce que seytaane yi moo ko waral ak stress bi. lan moo koy andi. faiblesse sexuelle seytaane yi stress bi moo indi. stress stress waaw. waaw stress bu métti mooy indi faiblesse sexuelle ak lekk yi ñuy lekk. ak seytaane yi ak seytaane yi. Ah. seytaane yi ñoom ñooy indi faible faiblesse sexuelle waaye nee nañ tamit lekk yi tamit suñ bari na ci de lekk yi nga xamante ne la ñuy lekk léegi kenn xamatul lu ñuy lekk waaw léegi kenn lu ñuy lekk ceeb yi dañ koy ceeb yee ak li ñuy lekk dafa bari dafa bari li ñuy lekk ca baaxul moo ëpp foofu li ñuy lekk tam bu baax parce que nit ñi du ñu bàyyi xel lekk lekk dafa baar dafa jar ñu saytu ko mhm. léegi nag ku nekk ay jaay ku nekk la ñuy jëggaani lu nekk la ñuy indi àddina mm-hmm. bi léegi marché mondial bi ubbeeku na àddina léegi yëpp benn kër la. dëgg la léegi ku nekk li ngay lekk mënatoo ko contrôler mais daal li ëpp solo mooy. Mm-hmm. def entretien sa di faj sa yaram. Mm-hmm. di di defar sa yaram comme nii. d'accord boo toogee yenn jamono yi nga jékki-jékki nga jënd garab nga naan raxas sa yaram ba mu set nga beesaat amaat kattan. mais boo ko deful da ngay jékki rek chuté. chuté mooy waral nga jékki-jékki nit ki di jëkki jékki moom yàgg rek am problème mu sëy. te du xam cause bi lan la. d'accord am na ñoo xam ne mënatuñu def ñaari rapport guddi. Mhm. bu ñu defee rapport dañuy sonn. pare nañ ci pare nañ ci benn rapport mën na am na ñoo xam ne sax semaine ba semaine benn yoon la ñuy def. <laughs> parce que mënatuñu amatuñu énergie amatuñu. Mhm. érection bu doy. loolu dañu am manque manque manque appétit dañu appétit dafa coupé. mais kii moom mooy dindi appétit bu coupé. mooy mhm. dindi. manque érection. Mhm. mooy dindi éjaculation précoce yépp lay boole dindi. d'accord euh, ci ñu bari dañuy faral di wax ni euh, di jël yenn produits yoo xamante ne ne. tey jii war na di ko boole di ko produit na ñoo xam ne pour nga defar ko il faut nga mélanger ko yeneen. nga mélanger ko comme produit bi ñu mélanger la ah. yoo xam ne tey boo ko utilisé. Mhm. da gis ne lii dafa efficace. efficacité boo xam ne résultat bi mu lay jox dafay exact ñu la ko waxee nga koy gisi d'accord te du am benn effet secondaire. du am benn effet secondaire plante jafe na nga gis ci mu am f secondaire. Mhm. waaw xam nga am na plante plante yoo xam ne dafa toxique. dëgg la dafa toxique. dafa toxique mais mhm. yooyu yëpp yëpp da nga koy xam. d'accord yi da nga koy xam. da nga xam ne yow bu fekkee dafa toxique dafa am loo ciy jël. d'accord loo xam ne doo ko doo ko sañ a kii. macha allah du sañ a am na yoo xam ne dañoo wex. dañoo wex am na yoo xam ne doo ko ci boo koy mélangé da xam. lii boo ci war a jël 100 grammes bi nga war a ci jël 1 kilo bi nga war a ci jël ci 20 grammes bi nga war a jël 30 grammes yëpp da koy xam. macha allah des fois day fekk nga xam uh-huh. ne ñu composé mélange ni ñuy composé xam am en même temps tamit effic euh, résultat bi. résultat bi la ngay am. macha allah euh, des fois damay faral di am ay retour surtout ci ci page bi euh, ñenn ñi nga xamante ne dañuy am jàngoro bi dañ la naan ndax bi ma jëlee garab bi rek damay damay tane. wér ngay wala. wala damay jël traitement donc lan mooy différence entre tey nit ki. dafa am am ay garab yoo xam ne. waaw waaye àggale nit ki. waaw nit ki tey dina soxla par exemple ne sentirul boppam mu jël ko pour nekk ci wala tamit tey jii nii ñu xool ni carrément ci longue dure bi kat mu xool ni jamono ji kat kii am neexatul mu ne waaw dinaa jël traitement pour def sama yaram tey jii boo ko doon digal nit kooku noonu tey lan la war a def exactement. traitement moo gën. problème. waaw nga bëgg a euh, euh, am loo xam ne da lay dépanner. Mhm. naan garab bi loolu da ngay forcer sa sa sa organisme bi. Mhm. te de force sa organisme baaxul day tax nga am perturbation. d'accord soo xasee am perturbation pour nga am médicament bu la faj. Mhm. dafay dafay jël temps moo tax li nga xam ne dañ koy naan léegi faj sa soxla léegi. loolu dafa dangereux. dafa dangereux kay parce que da sa ah. vitesse de sanguine bi muy daw vitesse bu ëpp. moo tax ñenn ñi di crise cardiaque loolu mooy indi crise cardiaque boo amee crise cardiaque da lay mën na la rey mën na la rey kay boo amee yenn ci mais kii moom mhm. du problème boobu kii boo ko naanee mhm. dina la dina la may la nuit même di nga sentir ne am na amélioration par rapport ak avant ok boo xam ne bu bu yam lay nekk mhm. léegi nag nga topp ko fur et à nga koy naan di ko continuer da ngay ànd ak moom di ànd ak moom di ànd ak moom di ànd ak moom ba keroog ngay mën a am euh, li nga soxla macha allah lii boo xoolee mu nekk ay sachet tey nan lañ koy utiliser kii da nga koy kuddu bu ndaw rek. waaw ngay jël cuillère a soupe ngay cuillère a café. Mhm. ngay jël tibb ci sunguf bi rek sotti ci kaas bi yëngal. Mhm. naan ndox bu sedd bu tàng bu tàng bu tàng ngay def. d'accord macha allah yëngal ko moom ak kii poudre yëpp ngay naan déedéet sunguf bi ndox bi rek ngay naan ah, ndox bi rek ngay naan waaw dafa dafa jàpp ni wala matin midi soir matin midi soir trois fois nga koy naan macha donc amul date boo xamante ne nga ko naan nii wala comme par ça dépend si sa maladie rek yow boo commencé daal yow da nga sentir la ça va. si ça va ba sentir ni ça va rek nga mën nga. arrêté si ça ne va pas tamit nga continuer jusqu'à nga xam nga nit ñi seen. feebar seen jàngoro yi tolloowul. dëgg la am na ñoo xam ne seen feebar. Uh-huh. dal na leen ay cinq ans ñu koy sooxaale. dëgg la am na ñoo xam ne ñoom dañoo tal seen yaram. Uh-huh. bu leen dara métti rek. automatiquement dañuy dem xool lan la. dëgg la kii dara métti mu dem la. Uh-huh. kooku benn kuddu wala sachet bi sax mën na ko faj. mën na ko faj mais am na koo xam ne moom na soxla ak wala mu dem ci yeneen i fajkat ñu dox ay garab mu naana naana naan ba yaramam bi tul. Oh. tul tul garab. léegi kooku bu dikkee. <laughs> ah waaw kooku bu dikkee naan na garab yaram bi miin na garab. billaay kooku boo ko bëggee faj. il uh-huh. nga am expérience. xam li ko dal. dëgg la mën koo faj am na ñoo xam ne obligatoirement dañuy war a toog man. macha allah pour ma wax leen ñu wax ma ma xam seen niveau. ak uh-huh. problème ak fi ñu jaar yëpp. lan moo leen arrivé ci yooyu noonu yëpp ak li ñu jot a ci ay médicaments. Mhm. ma xam ko man leen conseiller parce que man ah macha allah naa expérience ci lii. d' accord naa conseiller nit médicalement pour mu mën a am santé bu normal ci loolu la